boo bëggee information yi wóor abonné ci seen biir Lamp Fall Léral du baax yi wóor yi ñu ngi leen doole siyaare waa Lamp Fall Touba ñu ngi nii si kër Sëñ Touba gi nga xam ne moo nekk si jumaa ji de résidence toog ak Baye Ngunda Fall mu sëñ Fallu mu sëñ Abdou Sakkour njabootu sëñ Abdou Sakkour gépp seenu taxawaay ñu ngi romb fee léegi turu yàlla wi nga xam ne ñoom saa su ne buñ ñëwee buñ ko tàmbalee jëlee ko paa leen ba ni ñuy egg see fii du dog ba keroog ñuy eggaat. kon Baye Ngunda ñu ngi doolee tuub xam ne xat na nag lool waaye comme sëñ bi taxawaayu ndogu yi di taxawaay boo xam ne si si mag ñi la tàmbalee di santaane Serigne Touba Cheikh Rahim Fall jëfe ko ba jóge fi sëñ du Moustapha Fall jëlee ko ba si ñu mujj si doomi Cheikh Rahim Fall di sëñ Abdou Sakkour ñu del tudd di leen tudd muy seenu bunt lu sëñ bi mën a dolli si kàddu yi mën see sofaat ab leeral. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu jiital ci suñu nuyoo sëriñ Muntaxa moom sëriñ Mouhamadou Bachir ci tegit sëñ Amdi mom serigne sëriñ Mboodu Mbenda moom maam Cheikh yoro ñu nuyu suñu kilifa suñu buntu suñu jëwrin suñu wasila serigne Fàddilu mom serigne Abdou sakor ak mbolo njabot suñu Abdou sakor gep non lañu ñu tamit mbolo njabot mam Cheikh yoro gep ay dal di am mbekté ak contentement bu baax ci ñew gi nga ñew fi ci ñun di ñu laaj ci liggéey bi nga xamne ci lañu nekk di ci liggéeyal mam Cheikh yoro ndax limay faral di wax rek borom sañ-sañ ak kuy dogal ak kuy doxal ko neex du ben mam Cheikh Ibra dafa dafa yorub sañ-sañ sañ-sañ bobu nak sama borom mi nga xamne mo sañ ci nguram gi moko sañal jox ko sañ-sañ bam sañ ci def sañ ci dindi waral nak mu liggey bi bi fi nekké don ko doxal ànd ko ak mbolé magi talibé yépp diko liggéey Serigne Touba mi nga xamne moko santone koy don jëfël ci wër wi diko ko téralal ba kérok gan gi dellu nonu tamit la njabotam gi nga xamne ño fi nekkon ñew di doxal liggey bobu ba tay ji setam yi nga xamne ño fi nekk diko ko doxal yalla yag te ñu yag ko and ak talibey yi ah, bi rek moy ku ne gis na ndigal li ndax li seigne Saliou daan wax rek ndigal mom am wote woote amul xare ndigal bu xasse juk mom kenn ku ne lo jappan bako te dem wuy ji ndax ñun ñepp genn kaddu mo ñu te moy kaddu ndigal defal nga def bayil nga bayyi kon su serigne bi joxe ndigal rek na nañ juk ngir jëf rek kenn waratu la tok di nek ci lenn ci sey tay bop lañu wara def moy daal di jog rek fekk ci ndigal li defe ko niko serigne bi bëggee ndax bi mom lim ñu bëggal ala kulli hal ñariñ lay doon ci ñun té lim ñuy dawalit moy lorange yi nga xamné mi ngi ci aduna ndax aduna dafa bari ay pak bari ay gàllankoor bari yak yak te it buñ saxé ci ndigal tënku ci ndigalal serigne bi danañ ci mucc bu baaxa baax te xam ne loolu moo ñuy dimbali fii ak fa ñu jëm loolu moo waral liggéey bi nga xam ne ñu ngi ci nekk yemalewuñ koog dara ndax bu ñu ci nekkee moo xam bu dee li togg ba ca kër ga ak bu ñu koy dox di ko indi ci sëriñ bi tamit dañuy ànd ak yar ak i teggin ak worma ak it jox pas-pas li ñuy liggéey ca ñu jëm ndax ki ñu koy liggéeyal daf koo fonk lool waaye kimit kak koy liggéeyloo da koo ñor lool kon nag mel na ne ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi te taxawee liggéey boobu ñu nit loolu war nañoo gën a yitteel ndax ñaari pas-pas la yoo xam ne kenn ku ci nekk foo mu jógee daf leen a yitteel ñun wax deug yalla war nañu gëna jël yitte joju buñ ko def muy suñu yitte à 100 waaw lool dal moy li nga xamné mom mom lañ ko ci doon wax talib bo xamné tamit yaa nekk ci biir réew mi ak fo man di nekk mo xam bo ñëwul it nga sa alal yone ko ndax ab fall Faal lool moy warté fam bu dé ko xam dafa nekk fo xamné muñ ta ñewit xol bi ak xel mi yëpp mi ngi fi waye tamit dana yone adiya mu ñew ndax yoon wi ñak la ak ñuqi li yes dal moy ko xamné defo ci ñaar yoy ben ñako te ñukki wo loolu moom ku ko def day mel ne da nga turu turu turu Baye moo fa ne rek waaye day mel ne sarti Baye Fall yi nekkoon ci waaw. foofu sëñ bi waxee maanaam koo xam ne si ñaqoo ñuqiwoo day mel ne tur wi nga jëmmal waaye nag doxe woo doxin wi te yoon wi moom Cheikh Fall dana woon romb ak roy la boo gisee lu baax nga roy ko boo gisee loolo doyul nga romb te mel ne ne bàyyi na fi tamit ñu mat ñoo xam ne si ku leen topp maanaam fañ àgg rek ba gaa yu baax yi àgg danañ fa àgg li si dolleeku njabootu Sëñ Abdou Sakkour taxawaay bi mboolem murit yëpp ak Baay Faal yi rafetlu ko muy yar gi ak teggin gi ak nosu giñ nosu nga xam ne buñ jógee di ko jëmmal doxin wi ak melo wi si si waajur ya ba si taxawaay boobu moo des tey jii dellu si loolu tamit mboolem Baay Faal yi war nañ am jàngat boo xam ne si dañuy jàngataat loolu xam naa ñëpp sax bindowuñu mën a amaat waaye day ràññeeku ràññeeku goo xam ne ñëpp maase nañ nangu loolu daal faal. waaw loolu day alhamdulilah ak la ndax mbir moom boo ci mu am lo xamne dem nañ ba ko la ci na la ko deug yalla ak cant la ndax lepp ñepp lu ne ku ne nga ja te it ku ne xamne na mom yonu mam Cheikh Ibra la te it bi dafa yor ay bankas manam liñ ko mëna wax moy datu garab gi la la dem ba ci kaw nak da yor ay branche branche bo ci japp nak ci garab gi nga japp tay melne kon fekke na amna lo xamne wax nañ ko comme ni nga ko waxe legi bu jeme ci kër gi lolu ak cant lay doon ci ñun waye tamit da fay melne tagat gi day joge ci suñu wayjur rek suñu mortala mom mi nga xamne mom mo doon indi ndogu yi ci liggey bi ñu daan and ak mom muy suñu wayjur té mu daan joggé ci kër ga ñew fi ñu and ak mom indi liggey bi lool nak ay at mu di tambali diko def ndax wax na ma euh, kérok rek ci ndogu yu ñëk yi ne ma jamono ci Abdou Khadir la ko tàmbali woon booba léegi mu and ak talibé yi tagat leen ci tagat gu am solo nak ndax da fay nit ko xamne boko xolé rek bo dee ko amum xel war nga yarat sa bop ndax bu fekkee ay at moo la ko ëppale ba noppi gën laa yaru ku mel noonu ku ànd ak moom boo amee xel war ngaa yaraat sa bopp bu baax a baax loolu moo waral bi ñëwee tamit liggéey bi mu jiital ñu ñu ànd ak xale yi di ko def yomb na ci ñun lool ndax fekk nañ xale yi li waroon a ne ci ñoom ci yar teggin moom def na ko ci ñoom def na ko ci ñoom ba pare moo tax liggéey bi woyof na ci ñun toll waaw ah, woyof na ci ñun toll xanaa di ko ñaanal rek sama borom yàggal ko fi te dolli ko wéral waaw jërëjëf Fall yàlla na yàgg lool yàlla nga ko yàgg yóbbu jiite ko mu mel ne waajur sëñ Mortala moom nga wax ñu dubb ko sëñ Mortala Fall day mel ne euh, liñ naan yaru baax na lool mën a yareet baax na lool waaye fex ba xolo xool yaru moo ko ëpp doole te mel ne ne noonu la doxee rek kon sëñ ñu ngi lay doole jéggalu di jéggalu bu baax kàddu yi ak taxawaay bee xataay gi ak dikk di ñaan suñu borom doole laa taxaw bu baax taxaw mboolem jabatu Serigne Fall sant nañ bu baax oyofal geek ni nga dikkee mën suñu leeral jërëjëf Fall jërëjëf Fall. boo bëggee information yi wóor abonné ci seen biir Lamp Fall Léral du baax